salaamaaleykum waaw waa ñu ngi fii si euh, waañ bi euh, presque boo xoolee tey ñu ngi si kër El Hadj Modou Moustapha Ngom presque ñett waañ la mais ñu ngi si euh, taxaw ak responsable Waly Sakho dañ koy bàyyi mu expliqué ñu rek mu xoolal ñu situation bi dëpp si suba nu mu demee boobu ba léegi. salaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bi ñu sant yàlla ñu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy waajur ñu ngi sant El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom ak Mouhamadou Ibrahima Bassar waaw di rafetlu invitation bi ngeen def nii. ndax bis bi moom ñëpp xam nañu bis Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. donc ñu wasal di yàlla ñor léppam Seydina Mouhamed la woon. parce que loolu la ñu tàggat te loolu la ñu yar. muy suñu jot suñu alal suñu temps suñu lépp ñu ko def ci Seydina Mouhamed bu xewlee. voilà bu dul woon moom kenn du am bay am li ngay am ba tiitaru wala nga ciy dawal oto bu ref wala yor si yor nga dem. kon loolu dañ ko delloo ñu ko Seydina Mouhamed moo tax nga jàngoon ñu lii ci bisam bi. bu loolu weesoo nag. responsable bi nga xam ne moom la am si daayira bi muy commission d' organisation donc lii si benn wàll bi la mooy côté waañ bi mhm. donc euh, soo ba léegi alhamdulilah ñu ngi koy gérer comme nin ko nin ñi nga xam noonu la ñu ko dénkee ñu koy gérer noonu ànd ak euh, équipe bi may liggéeyal mhm. nga ni moom nit moom bu jiitoo rek dañ ko wutee lépp mën naa mën mënu maa def lépp mais mm-hmm. dafa am sama gannaaw di ma jàppale nga xam ne tout le temps ñu ngi à gauche ñi mm-hmm. donc euh, njiit bi mën naa ni jiit la buñ ma jiital mm-hmm. waaye mën naa ni lépp gaa yi la parce que moo si jàpp loo gis mbooloo foog am rek ku ko yor mais boo amul ñu nekk si gannaaw mënoo dem waaw donc euh, organisation moo demee noonu donc ñi dañuy jàpp fii ñuy jàpp fii affaire mën a avancer mais ngi sant di leen gërëm de passage parce que tamit tôt ba léegi ñu ngi ànd ak man ci liggéey bi parfois def sax loo xam sax man defuma ko kon leen sant bu baax di leen gërëm dëgg yàlla mais suba ba léegi daal alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant na si ak ñi na si jàmm ñu ngi waaj bi ci bi jox ko nit ñi terale leen ko ngir jëmmi bis bi Muhammad sallallahu ba leen benn jafe-jafe si si diggante bi wax dëgg yàlla de euh, ren moom sant yàlla parce que njëf yi des na añ yi des na te reer yi am naa yaakaar si kàttan yàlla suñu borom ci barke borom bis dina des incha allah rabbi ba alentour ñëpp ñu ñu wër ñëpp bu soobee yàlla yonent bi incha allah rabbi daal leen jox ci xéwal yi nga xam ne ñu ko jagleel Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ laaj moom sëñ Waly kon euh, so kàddu bu mujj kàddu mujj bi mooy euh, di ñaan yàlla yàlla nañ koy teewe ay at yi at yéen ñi fi ñëw ren ñii seen télé bi ak seen rajo bi déwén yàlla ngeen fës bi ñëpp dégg leen ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que mbir yoonu def bu ko xeeb ndax ñun Seydina Muhammad rek la ñu am te loolu ñu ngam jàngal donc ñu leen sant bu baax di leen gërëm leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci defal jàmm tamit mbooloo mi dafa ko jàmm ngom ak njabootam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala ah voilà loolu la woon euh, ñëwoon pour xool euh, situation waañ bi di ko taxawee ak euh, responsable waañ bi wax nañu situation mu demee ak lépp loo xamante ne te yaakaar na ne reer bi tamit incha allah lépp dina jaar yoon. Mhm. kon jërëjëf xam naa ba kanam incha allah. futteeku ni bàyyam nekk ci liggéey bi di góorgóorlu parce que góor gi maamu bu ñëwaat waaw laaj moom danaan takk ndiggam def tànqam di yàlla ay saabu samp di tànt di def ay séy bu waxee ne ko góor gi bàyyi mu ne gën leen maa bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom léppam Seydina Muhammad noonu da ko jaral day takk ndigam di fecc bay bay bërëngu ndax doomu ak kooku rek moo jar feccal te kii nga gis ni mu sëgg nii doomam la waaw ko neexoon tey dem toog parce que kilifa di si góorgóorlu di si di si ñoom ñëpp ñu ngi si liggéey bi góor góorgóorlu bu baax a baax. waaw allah kee tamit Matar. kii tamit. doomu alaaj waa alaaji moon ngom la moom daf may jàppale si waañ bi ku baax la ku yaru la te sama sëriñ la sama xarit la mais jàmbaar la day raxas sax cin di raxas bool te doomu alaaji moon ngom la donc àdduna bi moom li am solo mooy ngom ñun yonente bi la ñu jàngal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam si loolu la ñu yor si la yar njabootam te bu ko nekkoon toog sol lu rafet toog parce sa kilifa la mhm. waaw mais day nekk si cin nekk si bool di raxas def lépp donc àdduna bi ñun ñëpp fàttaliku yonent bi xam kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis bu ñu ko joxee gëddam rek àdduna bi lu waay bëgg di nga am ndax yàlla Seydina Muhammad rek la faale te ngoom loolu la ñu jàngal allahumma salli ala Seydina Muhammad xayra wa rasul wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima moom bu amee kàddu bi sànni ngeen laaj ah jërëjëf ah sëñ sëñ sëñ Maxtaar ñu ngi lay ziar bu baax a baax ah di euh, lan mooy sa kàddu si euh, comité d'organisation bi waaw man balaa dara damay sant damay jaajëfal jëmm ju tedd ji neen ko allah ji Ngom et puis di jaajëfal aussi équipe bi nga xam ne ñoon ñoo ànd liggéey depuis boobu depuis une semaine ñu ngi ci jàpp ñu liggéey liggéey bu mucc ay parce boo xoolee tey li nekk fële déjà bari na liggéey bi kenn xamul nu mu tool booba tey ñu ngi jaayante te ku ci nekk am na loo mënoon def bu la neexoon nga toog croiser mais defuloo ko da ñëw jaayante ngir doomu Abdoulaye ku nekk xam nga ne raxas jigéen a koy def waaye ñoom fàtte nañ ne sax ay góor lañ di ko ñàkkante te xam nga nit ku mel noonu amuloo fayam te lépp bu doon man la day ñaaw mais lépp yàlla moo tax yenente bi ak ki nga xam ne moo ñu boot moo ñu jokkale moo ñu jël suñu loxo jox ko ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad moom moo tax gars yi di sonn aussi tamit di sant bi parce que tey di naan lu jiim njaak moom mooy njaak parce que tey bu ñu demee ba ñimee waañ bi c'est grâce à lui dañ ko wax man loolu duma ko rusa wax fenn moom moo tax man affaire wàññi nekk sama sama sama programme musuma ko dugg li nit ñi daan dund laay dund toog kalu mais tey bu ma ko ñemee moom may fit moom may fit donc aussi di ko wax nag ñoo ngi ànd ak yow ci liggéey bi yombul waaw waaw ba ba ba ba ba ba ba ilaa yow mi din daal waaw boo dawul daal duñ daw ndax xam na daal bu ñimee yoon mhm. moom si la bokk waaw lépp daal moom daal dañu koy delluwaat waaw te te ñu xam ne moom mooy président comité d'organisation mhm. moom mooy sama président waaw jaajëf jaajëfal daa baax rek mhm. daa baax rek waaye kilifa la sama ji si Euh, mënoo yëg sa bopp mënoo mel ne ne a mel moom mi ngi fi ay magam ay rakam tamit noonu lañ mel si daayira ñi ngi togg ñi ngi raxas ñi ngi wàcce seen bopp lépp la ñu fanaan donc daal sant yàlla di ñaan yàlla yàlla li nga xam ne moom ñu dénk ci mboolem yàlla si yàlla mbay nam may ko bépp mboolem jullit ah bu nekk dalaale foofu yàlla def ci jàmm ubbi xéwal yi yokk lépp ci barke si nga xam ne ba lu waay mën ren ci bisu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga mën lu ko raw encore du mot temps yi di di ko wax moo di remercier équipe bi parce que kenn mënul dara remercier équipe bi yëpp maa ngi remercier bu baax ci kaw ba ci suuf ñëpp maa ngi sant di leen gërëm di wax yàlla na yàlla fay ci barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci barke Alaaji Moodu Ngom parce que euh, ni mu ko waxee rek raxas bale tante rey fees tuuri ay mbaq raxas ay ay bool am ceeb yu ya, fanaan dem tuuri yooyu yëpp yombul mais ñun yar bi ñu gi yar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax loolu mënul di su ñun ndax ñun kenn nga gis si ñun muy Seydina Mouhamed parce que ngom loolu la ñu jàng mhm. donc ñu ngi ñu leen sant di leen gërëm sant ñëpp xam na yàlla def jàmm si daraja Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf sant naa leen bu merci beaucoup jërëjëf jëf C'est bon, hein? C'est bon, oui. Gars, tu nous waaw waaw waaw